biram nag sénégalais yi ci bari nag instant bi da leen a yéem torop torop nag li nga xam moom moo di ay mbiram ginnaaw nag moom mi nga xam si nag moom moo di Karim wadd nag moom ay députéem rek ak député Benno yi rek ginnaaw ba ñuy dem fële nga xam si nag moom moo di ca assemblée national pour rek ñu xool li nga xamante si ne moom moo di candidature bu Karim Meïssa Wade mais nag instant bi député yi yu uh, Karim Meïssa Wade ak yu benn Bokk Yaakaar ñoom li ñu bëgg rek leen pour ñu reporter li nga xamoo di élection yi te Sénégalais yi ñoom bëgguñu lool dara dara ndax xam nañ ne baax ba élection yi ñëw na ba pare ñu dem ba xam si ne deux jours te ñu tàmbali li nga xam moom moo di campagne bi ñu naan dañuy reporter élection yi loolu daal la kenn rek mënut a ginnaaw nag élection yi li ci des nag bariwul ñëpp rek ñi préparé seen uh, bopp.